ñu nekk ci nguur gi rek ay dund ñeneen ñi dañ leen di seetaan nooy def nga am papa am yaay mu war a lekk war a naan war a dëkk fu baax war a mën a faju war a mën a voyager fu ko neex dem parce que doomu adama kenn tënku ñu yàlla daf ñu bàyyi ñu firi mais tey Sénégal boo gisee nit ñi tënk ñun doomu aadama comme ñun moo ñuy tënk te ki lay tënk yow yaa ko fal tey bu soxlaa day ñëw leen mun taxaa dem a bëgg nga foteel ma nga jox ma réew mi ma defaral ko tey jii boo ko falee yow mi ko faloon tey yow lay mujj di la xeexal loolooy suñu problème tey yow sa courant yokku na sa ndox yokku na sa luwaaye yokku na yaa ngi war a dee sa dund yokk na amul lenn lu yokk tey bu ñëwee ba kilo soble di jar 1200 saako ba di jar 25000 fa lañ jëm butéelu diwlin mi ngi woon ci ay 12000 13000 tey ci mi ngi ci 27000 bu yombee ba yombi 25000 fan leen jëm parce que tey marché bi tey dama yaakaar ne ministre de commerce liggéeyul parce que bu waroon liggéey war na mën a wat ay nit ñu wàcc ci marché bi di contrôle ba xam lan moo xew ci marché bi. parce que man bu yàggul dem naa ci benn boutique ñu amoon benn ñaan benn nit bu faatu ñu koy defal ay ñaan gars yi ñëw fa di jàng ñu ne na mën na dem jënd paquetu tàngal pour mën ko séddale ma dem ci boutique bi jox ko 2000 mu jox ma 1000 francs ma taxaw di xaar weccet mu ne ma yokk na 1300 la te boobu mënu ma woon bàyyi ko fi parce que pression bi nga nekkoon comme dañoo am mbokk mu gaañu ma jël jox ko mu mu delloo ma 700 suba sama dem ci benn boutique laaj ko ne ko paquet bi lu ma jar mu ne ma 900 imagine lekk na samay sama samay samay samay samay samay 400 parce que loolu lépp ñàkk contrôle moo koy waral il fa que ñuy wàcc di xool marché bi ba xam prix fixé ay prix tàngal lii la war a jar kilo ceeb lii la war a jar donte ceeb yi bokkuñ bu ci nekk ak prix am képp ku ko wàcc ñu teg la ci yoon ti la teg ay amande mais dañu bàyyi nit ñi tey commerçant yi di def lu leen neex tey da dem ci kii mu jaay la 250 nga demee ci kii mu jaay la 300 te même ceeb bi la diwlin noonu da ngay jëm kii jaay lii kii jaay te même diwlin bi la. soble noonu kii di jaay lii kii jaay lii il faut que ñu am ay nit ñoo xam dañuy wàcc sur le terrain di contrôler prix njaay yi nit ñi xam lay li ñuy jënd mooy lan nga xam ne képp ku dépassé prix bi ñu fixé ñu jàppale teg la ci yoon loolu mooy dëgg tey ji xolo woyofal ni mu seeree courant yi facture yi tey ku daan fay quinze mille yaa ngi ci trente mille ah ndox xolo ni mu yombee woon ndox tey ji facture yu ndox ñu ngi ci ay fi muy wax ak waaw imaginer ci kër goo xam ay 10 000 nga doon fay ak 9 000 ak 11 000 ak 12 000 xoolal différence bi tey tey soo waxee dañ naan gaal bi dafa am fiit dafa am fiit nga ñëw tey vérifier duñ gis dara mais tey lan mooy problème bi parce que ndox bi depuis bi ñu ko jëlee ci ci ci e jox ko seen eau tey sénégalais yaa ngi bëgg dee ndox rek na taman jàpp naa ne ndox mi comme la de guerre bi ñun ñoo ko moom yàlla suturaal nañu jox ñu ko ñu moom ko muy seen yëfu bopp ndox waroon nañ ko mën a subventionné bàyyi ko may ko nit ñi sénégalais gratuit loolu ñu féetewoo courant bi di ko fay mais tey bu fekkee da nga bëgg a fay ndox fay courant fayal say doom ñu jàng nga bëgg a fay fi nga dëkk bëgg lekk bi nga naan te yow amoo saleer ab dangay ngay taaba taaba ci secteur informel bi nga ne te secteur informel bi kenn kenn kenn dooleelu ko nooy def mun taxaa parce que gars yi sax da nga gis sénégalais ne léegi euh, woyafal bi dafa dem ba tudd léegi diisal ndox mi cher na courant bi cher na comme ni nga ko waxee euh, euh, MC Mass mu nekk loo xam ne Sénégal dañuy poser problème bi lan la fan la problème bi nekk ñëpp a ko yuuxandoo est que état bi ci boppam ñu ngi xam li sénégalais di dund en tant que yéen ñi nga xam ne yéen a yor donc kaddu gi nga xam ne boo leen waxee ñu dégg leen MC Mass yéen tam loolu tam doo leen ko toggee seen biir kër rek toog parce li ñu war a wax bari na mais politique suba ngoon ak guddeeg bëccëg politique. li Sénégalais yi ñoom li wax xam nañ ko li Sénégalais yi dund xam nañ ko dañ ko deful parce que ku ci nekk sa bopp moo la ñor tey ku ci toog doo ne man fonction bii ñu ma jox wala ministère yi bi ñu ma jox naa ci liggéey tey ba am ci ndam ba ëllëg su ma jógee tey senegal yi man ma tagg man ma jàpp loo tax ku ci nekk ministre tey boo fa jógee parce que fara sa carrière bi politique di yam parce que di nga dund ak sénégalais dund goo xam tey dañ lay jéppi tey boo jugoon di laaj réew mi kenn du la ko jox mais tey kii ci toog ci benn ministère da ko war a doxal ba tey ëllëg soo soxlaa réew mi sénégalais jox la ko ne diw mi kat jàmbar la parce que ministère am bi ko yoree géré baaraam benn tuuba euh, parce que lu ci bëri bëri yéen boo leen toogee ci plateau yi euh, lu ci bëri bëri politique bi rek ngeen di wax mais dundi gi bi tam li ngeen ni nga ko waxee léegi yaa ngi mu cher lool est-ce que loolu moo gën a nekk yitteel askan wi que topp toujours di wax ci affaire politique politique quand même eh, MC. li nga wax dëgg la mais ñun saa yi ñuy wax dañuy wax dund gu seer gi waxoon naa fi ne nit ñaa ngi gàddaay ndax amuñu koddaay dund moo fi jafe amuñu njëgu café fii lépp a seer te kenn du lekk xeer mbir mee ñu ëlëm ba ñu gëlëm ñu ngi farankulaay dëkk ci taraxlaay réew mi mënuñu sàppi waaye kon ñu seex yàpp bi dañu kott ba ñu lot dem nañ ba sës lii dafa fës lu ëpp tuuru kuñ xaañ nga muuru ñun dañu beddi suñu baan yi du fi teddi amuñu teraanga dëkk ci yaraanga li mooy suñu wopp bés bu nañu koy topp kañ nag lay jeex bis bi ñuy bis bi ñuy sàng sër bu weex loolu wax nañ ko waxatiku mun ndaxaa ñun dañoo wax wax a wax ba niroog waxalaan c'est que ñi ñuy waxal ñoo bëggul dégg <laughs> dañu waxante dëgg xam nga ki ngay waxal bu fekkee dégg na la te bëgg laa di la tànqamte lu munoo ci dara ñun suñu devoir ñi ngi koy wax ñi ngi ci koy def ci son yi ñi ngi toog ci plateau yi wax mais ñi ñuy waxal bëgguñu ñu dégg loolu mooy dëgg te gis nga tey jii dundu dundinu askan wi tey ji tànk taxawuñu ji nii lay demee rek parce que tey ki nga naan toogal ci réew mi mu taxaa lan la fii toogee tey xale yaa ngi nii fu ñu laal ñu dëgër piir leen magasin boo laal ñu la deux cent mille wala deux cent cinquante mille te yow amoo capital bi nan ngay def tey amu tey xale yi tey ñu ngi leen bu naxatal ci dëkk bi te tey waroon nañoo mën a créer ay marché yoo xam ni ko européens yi di defee tey jox leen ay stand ñu ñëw samp fii jaay bu subaa ñu dem beneen secteur jaay demaat beneen secteur jaay loolu baax na feneen fi nga xam ne am na espace ñu defal ay stand yoo xam dañ koy du te ku ci nekk ngay fay état bi di ci gis boppam mais duñ ko def tey dañuy bàyyi booy ku nekk di wër kii di tax fii kii tax fii dégg bu booy demee occupé benn voie ñu xëy na leen yéen a occupé voie publique yi mais occupé voie publique moo gën occupé occupé occupé réew mi parce que tey ñi nga xam ñi ñi ngi sàcc wala ñenn ñi di agressé wala ñenn ñi dugg si naka su dul noonu parce que ñàkk ci lu ñu jàpp la donte duma ko questionné loolu wala sax loolu nekkul le prétexte